salaamaaleykum salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information Sen Teranga TV c'est toujours un plaisir di ànd ak yéen seen i différentes émissions alors dellusiwaat nañ ci li nga xamante ni mooy entretien du jour et li ko waral mooy euh, prétexte waxtaan bi sax d'ailleurs ak ki ñu invité ñu ngi invité ki nga xamante ni mooy Mouhamed Nabi bokk ci association bi nga xamante ni mi ngi tudd ànd euh, gorel ànd gore bokk jaar-jaar les ex détenus repentis ñi nga xamante ni ñoo amoon ay jafe-jafe ak yoon euh, génn euh, di xeexal euh, lépp li nga xamante ni moom milieu carcéral bi ak lépp li nga xamante ni moom mooy nekkinu jeunesse bi di lu am solo moom mi nga xamante mooy porte-parole bi ñu war a seq ak moom waxtaan prétexte waxtaan bi nag mooy xam ngeen ni mbiru crime yi nga xamante ni daanaka à l'espace de deux mois ñu ngi gis ni fukk ak juróom benni doomu aadama la ñu rey fii nga xamante ni moom mooy Sénégal bi ci gën a fës di double meurtre bi nga xamante ni mooy Aziz Dabala ak ki nga xamante ni moom mooy Waly ñu ci tuumaal benn soxna su siiw di yëngu ci wàllu fecc mais d'ailleurs di xaritam moom nag dañu ñuy dañuy waxtaan ak moom ci loolu waxtaan ak moom ci yeneen i ponk balaa ñu sori nag ci waxtaan bi Mouhamed maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax grand. oui Ousin ñu ngi lay ziar jegeel micro tuuti. ñu ngi lay ziar. Mhm. di waa Sénégal yëpp. Mhm. fépp fu sénégalais nekk rek muy góor ak jigéen ñu ngi lay mhm. ziar. di jël ziar bi di ko teg si loxo sëñ Mountakha mu jàllaleel ñu ko ci umma islamique bi yëpp di ziar. bépp sénégalais di di la ñaanal tawféex ak taysiir di siyaar ñi nekk si kaso bi ñu tëdd ci lalu hôpital yi ñu tawat nekk seen kër yi ñoom ñëpp yàlla na leen suñu borom dafal tawféex. barke borom Tuuba. voilà balaa ñuy sori ci euh, ci euh, exclusivement li tax waxtaan bi wala prétexte bi dañuy ñëw un ci association bi tey boo ñu doon tënkal ci lu gàtt association bi lan mooy njëriñam lan moo tax ngeen taxawal ko. waaw association bi ànd gore boo ko jaar jaar. ñun suñu borom dafa ñoo boole woon ci biir nattu bi biñ nekkee ci biir nattu bi nag ñu taxawee woon fa tànku dund dëgg. lan mooy nattu bi ban nattu. nattu bi mooy maanaam ci biir kaso yi. Mhm. dafa nekk association boo xamante ne tey ñi si nekk ñëpp dañoo jaar ci kaso yi. Mhm. tëddoon ay pen yu mag. Mhm. bëri si ñoo xamante ne tey ay borom tur lañ suñu borom dogal ñu jaaroon ci kaso yooyu noonu ba ñibbisi. dellu seen njaboot. commencé fonder seen famille di liggéey di jaayante ñu jóg former association bi pour mën a yee ndaw ñi suñuy raq ak suñuy jarbaat ak suñuy doom ngir maanaam ñu mun a jaar ci yoonu njub ndax bëri na loo xamante ne tey jeunesse bi dañ koy def. Hmm. te fekk fugu de jeunesse moo la koy defloo. Hmm. ci kaw fugu boobu noonu mu am ay loi yoo xamante ne. tey hmm. bu la daanee rek. mën nañ la yàqal sa avenir ci lu bari. waaw looloo waral ñu former association bi. Mhm. en tant que ay jeunes ay sénégalais. Mhm. war a participer ci développement wu dëkk bi war a wane suñu bopp ci dëkk bi. Mhm. Ah. wala wane suñu bopp ci dëkk bi euh, waaye nag euh, bu ñu ñëwee un peu ci li nga xamante ne moom mooy xeex bi wax nga ko wax nga ko sànq ñi nga xamante ne bokk association bi ñu ci bëri am na ñu am tur ñu bëri ñu xam sama xel xëy na mën na dem ci njóogu béy parce que man mu laa si gën a xam ci ñu ñu fës ak ñi nga xamante ni voilà parce que ñu si bëri am na ñu si dund ay 10 ans am na ñu si dund waaw association bi boo xoolee man bokk naa si ñu gën a ndaw la pen pen waay te def naa sept ans sept mois douze jours sept ans sept mois douze jours mhm. kon maanaam am na ay seize ans mhm. am na vingt u un ans am na mhm. am na ñu ci tëdd pen yu mag daal. waaw pen yu mag. waaw. Mhm. mais mais mais sept ans dix jours loolu yëpp xale moo la jàppoon wala yoon moo la tooñoon dugal la fa. waaw mais amaana. Mhm. xam nga liñ naan jàmbeeg pexem. Mhm. yàlla ak dogalam. sept ans sept mois douze jour yi ma def si nattu yëpp ci biir kaso bi yëpp dama koy sante suñu borom. ndax j'ai pas perdu j'ai beaucoup appris. waaw am na lu bëri luñ fa jàng luñ fa jëlee. loolu tey bokk na si lu gën a tax ñu am liñ naan sagesse. ndax tey mun naa ne bu ñu fa jaarul woon sax lu bëri duñ ko xam ci àdduna c'était notre destin jaar nañ ci jàll mhm. ñu ni am nañ jaar-jaar ba pare jóg nañu pour sensibiliser ndaw ñi ak sénégalais yi mhm. ngir ñu xam lan moo nekk ci biir kaso yi mhm. ak ñi nekk ci kaso yi lan la ñuy daj surtout voilà euh, bon wax laaj naa la sànq mais xam naa da ko boros rek mooy yëfu xale moo la fa dugaloon wala yoon moo la tooñoon yóbbu la fa tooñ naa tooñ nañ ma. du lépp la nit mën a wax quoi mm. <laughs> waaw. <laughs> d'accord mais en tout cas bon euh, jotoon nga jaar camp pénal. jaar naa camp pénal Koutal. Mm-hmm. Mm-hmm. deuxième camp pénal Sénégal jaar naa fa. Mm-hmm. parce que j'étais condamné. waaw ñaata at nga fa defoon. waaw Koutal presque parce que boo xoolee rëbësam fa def quatre ans six mois leneen di des Koutal laa ko yeggale quoi fa laa libéré sama kaso. camp pénal camp pénal Koutal d' accord alors euh, bu ñu ñëwee ci li nga xamante mooy kaawu Nabou Leye bi euh, double meurtre la wax coow li bari na tey ñu ngi dégg ay information wax ne Nabou Nabou d'ici peu dina libre ak yooyu balaa ñu ñëw ci mbir mi mais mbir mi ni mu demee naka nga ko gisee parce que yéen si yéen si seen biir association bi foog ma leeral ko mooy am na ñoo xamante yoon moo leen tooñ dugal leen fa téye leen fa am na ñoo xamante ni affaire de jeunesse moo leen fa même boo ma ko waxul ma damay xam forcément am na ñoo xamante nekk def naka sudul noonu yoon yóbbu leen fa kon du ñàkk yow am nga ñoo xam ñoo xam ñu ci woon dante mm-hmm. instant bi voilà ñu leen di ñaanal jàmm ñu nekk seen famille mm-hmm. loolu noonu lan mooy dugal xale yi ci mbir mi ba ñuy egg def ci ay crime d'abord euh, maanaam liy dugal xale nit ñi ba ñuy def crime mm-hmm. xam nga dañu war a bàyyi xel ni seytaane seytaane dafa liggéeyal yàlla te maanaam ci àdduna mm-hmm. seytaane it buñ demee yow mal xiyaam daa war a am mm-hmm. gàngoor bu muy nekkal mm-hmm. ndax jàmbeek pexem yàlla ak dogalam waaye it seytaane jaamu na yàlla ba am benn puissance bi moo tax tey boo négligé tuuti rek mën na la juumloo ndax àdduna moom ku dul juum amul ndax boo xoolee kaso ñett ñi ñoo fa nekk ki doon waaj a def ak ki def ah ak ki ñu nee dafa def ñett ñooñu ñoo nekk kaso waaw léegi nag boo xoolee ñett ñooñu ñoo nekk kaso ndogal moo leen fa boole ñoom ñëpp ci ay ndog-ndog lañ nekk bokk benn bërëb. Mhm. waaw lu jëm ci. affaire nabu bi. affaire nabu lay bi. Mhm. tey bëri na ay fee yoo xamante ni. Mhm. selon opinion publique bi. ak presse bi. liñ ciy wax. mooy comme dam ne nit ki ëllëg. bëri na lu ci nit di wax. te fekk xamul lu muy wax wala maîtriser wu ko. Mm-hmm. parce que dossier bu nekk ci enquête. Mm-hmm. du ñëpp ci war a prononcé wu. Mm-hmm. dossier bi tey ñi mu concerné mooy enquêteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo leen jàpp ah ak procureur. ak juge d'instruction bi ñuy joxe ji këyit PV yi. parce que dossier bi dafa nekk en enquête. kon loolu noonu tey nit waru si mën a développer yenn yi. mais tey. gars yi dañ jël euh, dossier bi. diaboliser ko. Mm-hmm. dem ba nga xamante ni ñu ngi dugg sax. si ñoo xamante ni seen yoon nekku si. Mm-hmm. moo xam doomam wala waa këram. est-ce que mm-hmm. ñu leen wax di leen yàq parce que maanaam réew mi léegi yàqkat yi ñoo ëpp defarkat yi ba pare yàqkat yi lañu gën a jox nopp. dafa am ay sénégalais yu nekk tey si diaspora bi di def seeni live ñoo xamante ni tey. kenn considéré wu leen sax si Sénégal kenn waru leen considéré si Sénégal. te dañ leen jox nopp jox leen bopp ba mu ëpp. nekk ci diaspora nekk ci kaaw bi di def ay live xam nga. ay nit ñoo xamante ne ñu ngi leen di tuumaal ni ay góor jigéen lañ ñii ñu leen di tuumaal leneen ak leneen di def ay live di wax ay wax yu doy waar. ci kii dee di wax ay doy wax yu doy waar. si ñu ñu jàpp mais mais bi ñu sukkandikoo nag ci euh, PV d'enquête yi en tout cas. Euh, lu su bëri dañuy wax ni dafa incriminé dafa xaw a laal ki nga xamante ni mooy nabu parce que ñuy wax ni ay dig daf ko defoon sur écoute et cetera et cetera moom moo woo yónnee ah, pour ñu xupp kook yooyu yëpp élément yooyu yëpp dafa doon tax xëy nag Sénégalais yi di ci wax. mais est-ce que police moo wax loolu. Mm-hmm. xam nga du police a wax. ba tey opinion publique bi ñooy wax. Mm-hmm. tey yow mun nga toog fii wala comme ni ñu toogee nii. nga posé ma question rek ma wax lu ma saf wala ma wax lu ma neex. keneen dégg ko jàpp ne waa jii nii ñu wowoon Teranga FM. Mm. Teranga TV mu wax dëgg la. est-ce nga dëggal wax jooju noonu léegi ñàkk am information yu wóor yooyu noonu tey mm. di nga dugal nit ñi. Mm-hmm. ci beneen guuta tey enquêteur bi tey enquêteur bi yor dossier bi tey bu déggee ñuy wax yenn si ci bi. Mm-hmm. te moom mu ngi def enquête am pareegul kooku du xam fan la war a jaar. Mm-hmm. maanaam fii opinion publique bi dañuy teel a boucler enquête. te enquête du noonu lañ ko war a boucler ba si yenn commissaire de police yi. ba si yenn euh, commandant gendarmerie yi tey da ngay nekk biir Ndakaaru fee am fii nii yoof nga nekk commissaire police yu yoof mais fee bi bu amee tag rek éléments yi dañuy dem xool ki gën a siiw. wala ki ko gën a jege ñu jàpp ko ne kii mooy suspect bi. opinion publique bi wax. si ak may dëgg yow doo def lu dul jël ko defeere ko toog xaar xam nga loolu noonu tey dafa nekk loo xamante ne tey bëri na ñoo xamante ne ñu ngi leen di condamné si justice mhm. opinion publique bi leen njëkk a condamné d'accord mais Nabou euh, Mohamed Mohamed aussi euh, xam nga affaire de crime bu ñu demee ba yóbbu ay nit jël sept personnes euh, yóbbu leen mandat dépôt te du ñàkk am nga loo xam ci affaire criminelle ak ñi yóbbu mandat dépôt léegi loolu ça veut dire que ni du ma ñoom dañ leen dañoo def mais laale nañ. waaw xam nga mandat de dépôt. mooy ku ñu téye téyam ko ñoom li ñu wax. Mhm. ba enqueteur bi. traqué leen téye leen. Mhm. seen diggante la ñoom la ak enqueteur bi. Mhm. bi enquêteur bi jàllale PV bi defeere leen. ci procureur procureur li mu gis ba téye leen. loolu ñoom la ak procureur bi parce tey jii nii boo ñëwee enquête. Mhm. dañ lay laaj nga wax mais boo waxee loo xamante ne mun na la dugal dañ lay téye. Mhm. la plupart boo waxee loo xamante ne da lay dugal wala day dugal keneen dañ lay téye ba téye keneen ki ngay dugal moo tax wax dafa doy waar daal. Mhm. xam nga rawatina yu mel nii chaque jour rek bu ci gaa yi di wax. war nañu am ay information yu wóor te leer. parce maanaam dafa nekk loo xamante ni. ki làqu làqu na. Mhm. mais tey ki ñuy jàpp dinañ ko jàpp moom jàpp ay waajuram jàpp ay mboqam jàpp képp ku ko bëgg wala képp ku. mu mais mais est nekkul tamit euh, bon parce que wax naa ne nag c'est pas aussi simple que ça ah affaire de crime dëgg la média bi si impliqué impliqué pour man waa DIC euh, sont des professionnels donc du ñu dem ba mener seen enquête ba ba bukkale ko teg ko ci loxo procureur muy décider et cetera ba ak chef d'inculpation yi ñu doon toppee xam nga dafa xaw a de malfaiteurs donc mën na bëri après finalité bi bu ñu leen di jugé mën nañ leen toppee benn mais li ma la bëgg laaj mooy par exemple sénégalais yi tey ak nabu bi pour yow nabu lan nga jàpp ni xëy na moo ko fa téye ci loo xam ni moo ko fa war a téye pour yow lan. non li ko fa téye man dama jàpp ni enquêteurs yi moom liñ ko laaj ak li mu wax li mu wax moo ko fa war a mën a téye wala soit ñu téye ko pour protéger ko. ah bon lépp mën na nekk. mun na mun na wax loo xamante ni tey enquêteurs yi xam nañ ni kii buñ ko bàyyee mun na am beneen troisième mort ñu téye ko pour protéger ko loolu noonu yëpp mun na am. Mm-hmm. mais tey ba tey kenn xamul lan moo waral enquêteurs yi téye ko. Mm-hmm. parce que tey policier bi yor enquête bi ba tey kenn déggu ko mu wax ci. Mm-hmm. porte parole police ba tey kenn déggu leen ñu wax ci. te loolu noonu tamit ça jour tey ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo yor enquête bi enquête bi ñoom la concerné. ah ba ñu jël enquête bi ba yóbbu ko ci procureur man fi rek dégguma ñooñu ñu wax munuma gëm yeneen PV yi nit ñi di wax. wala mhm. yeneen charge yi doomu aadama yi di def si nit ki. Mhm. parce que la plupart dañuy xool say ayib. sa yu bon la ñuy gën a wax. que yu baax yi nga def. yu baax yi mais euh, le présumé le présumé meurtrier. ki nga xamante ni moom dégg nañ moom laas la ñu dégg mu daal di publier information bi nii bu mu enk enq jàkkaarloo enquêteurs yi dafa ni moom maanaam moom moo def par exemple lu ñu sukkandikoo ci laas mooy benn nit moo rey léegi si loolu la Sénégalais sukkandiku depuis suba ba léegi naan na euh, nabu euh, bientôt elle sera libre et cetera. est-ce que yow en matière criminelle jàpp nga ni même bu fekkee si sept personnes lañ benn nit bi àndoo sa mbir mi jàpp nga ni loolu mën na tax ñeneen ñi libre. non mën nañu bañ a libre. bu dee xamoon nañ ni diw moo rey danoo dénoncé wuñ ko. Mhm. parce que complicité de meurtre égale à meurtre. tey man bu ma demee def ji sama ñombe ñëw nga fat ma fii. Mhm. yow yaa ma fat ñeneen ñi xamuñu ni def naa ñombe bi bu ñu ñëwee bu ñu ma jàppee dañ lay jàpp jàppaale leen. que yéen tolloo pen. est-ce que de meurtre. Mhm. égale à mën ngeen tolloo pen. mën ngeen tolloo pen. parce que yow ki rey da nee nañ sa papa sax bu reyee da ko war a dénoncer sa doom bu reyee danga ko war a dénoncer. kon léegi foofu doomu aadama bi bu defee nga xam ne diw mii nii def na hmm. hmm. ah da ko war a dénoncer. ci li yoon wax. waaw léegi nag boo ko dénoncé wul yéen ñaara yam yéen ñaara boo ko àtte bi. Hmm. parce boobaa day nekk association malfaiteur. oui oui. doy doy na waar kon kon ñiy xalaat naan. Euh, dina libre rek du libre donc bu libéré rek mooy parce que kon toppewuñ nga complicité de meurtre. waaw mun na mën mën na libre ñu bañ koo tom buñ ko toppewul complicité de meurtre dañ koy bàyyi. Mhm. ndax enquête bi tey mun nañ mun na juge d'instruction bi mun na jël dossier bi alkaati yi policiers yi ndax ñoom dañuy liggéey. Mhm. mun nañu continuer seen liggéey ba gën a xuus ba tragué ñeneen ak ñeneen. ñiñ jot a defeere nii est-ce que sax du ay rumeur. yi alkaati jot a dégg yenn fuite yi jot a am. moo waral tey jii nii ñu defeere leen. parce que fuite am na ay nit a ngi wax ci ay PV te PV dafa nekk loo xamante ne dafa sacré normalement PV doomu aadama kenn warul ko divulguer tey jii nii journaliste buy wax ci condamnation nit wala dara da nga war a bàyyi ba jouru jugement. nga ñëw toog. au niveau du tribunal. nga dégg parquet civil bi lu mu wax. Mhm. dégg. nit ki lu mu wax. Mhm. dégg juge bi lu mu comme ne nga soog a mën a bind ci kooku mais fii dañ naa dañuy dégg teel nee la damm na. Mhm. dañuy jàpp léegi benn nit léegi léegi ñu ne la tëj nañ ko. Mhm. te fekk kooku tëjee guñ ko juge bi da ko téye téyam ndëgëniku. nee la diw condamné nañ ko dix ans wala diw condamné nañ ko vingt ans. te kooku yeggagul sax fuñ koy tëjee. parce que dañ ko jàpp jàppum ndëgëniku di xool ndëgëm kii liñ koy toppee moom moo ko def. wala defu ko. Mhm. mais tey dossier bii nii. ak rumeur yi am ci dossier bii nii yëpp yow tey boo nekkoon juge bu ñu la joxee dossier bi da nga koy ragal. Mhm. moo xam da nga koy saax saaxee àtte dossier bi mu gaaw génn sa loxo. Mhm. wala soit nga teg fa dossier bi ba keroog ngay dem affectation doo ko laal. léegi loolu ñaata doomu aadama la jot a dal ci Sénégal. d' accord dina dina ñëw ci conséquence xam naa mooy nekk daaneelu waxtaan bi mais. Hmm. li mooy euh, euh, li nga xamante ni moom mandat dépôt bi euh, affaire crime. c' est vrai que lu ñu tàmm di gis tàmm di gis laa mën a wax c' est que ay deux ans trois ans jëm kaw parfois sax ñoom dañ leen fay fàtte malheureusement mais si fait bi ak ni ñu ko médiatiser bi est ce que en quelque sorte du nekk faveur Nabou au moins médiatisation bi mën na tax xëy na ñu gaaw dañu nekk ci benn dëkk boo xamante ne justice à deux vitesses man laay wax saa su ba léegi waaw man dama naan justice bi day demee à deux vitesses parce que situ tu es célèbre mhm. wala boo nekkee koo xamante ne borom alal nga borom daraja fii si Sénégal doo yàgg ci kaso yi dañ lay teel a lijjanti teel a xool sa dossier nuñ ko gérer mu dem tey dossier bii nii am na ñoo xamante ne bëgguñu dul ñu jox leen dossier bi ñu àtte ko pour tamit seen code de popularité gën a yéeg ñu xam ni juge nangam moo àtte woon dossier nangam bii nii est-ce que comprendre nga mhm. célèbre dans ce pays pour ñu condamner la day metti mhm. parce que bu ñu la tëjee sax après opinion publique bi ñooy jogaat ñëw ñaanal la ah, mais bu dee cas ñooy jógaat waxaat bi moom opinion publique dañu condamné la grande partie dañu condamné Nabou am na ñoom moom waaw pour le début mhm. pour le début ce n'est que le début. problème bi dafay soog a am. Mm-hmm. est-ce que yaa ngi dégg mun nañ dem ba ci biir ñu dem ba ci biir xam ni ñii nii ñu jàpp ñëpp ay innocent lañ ñeneen ñoo def jëye bi. wala ñu am yërmande si moom yàgg bu fay yàgg ak yooyu. waaw waaw parce que gis nga kaso képp ko xam kaso doo yéene nit kaso. bakkan moo gën a fort boo gisee nit kuy non bakkan dafa fort. Mm-hmm. mais tey jii nii imaginer tey ñu ne diw bakkan lañ koy toppee yóbbu ko kaso. bu dee moom moo ko def day gën a metti ci moom parce que ñaari mbugal a ngi lay xaar. Mhm. di nga ko dund di nga ko souffrir fii ci àdduna di nga demaat yowmal xiyaam souffrir raat ko ndax bakkan moom yóbbu ko dafa ëpp mais loolu noonu yëpp lu ko waral mooy wàcc suñu ànd ndax gis nga nit boo wàccee sa ànd dem ànd jàmbur loo fa dal yaa ko teg sa bopp. Mhm. fii sénégalais yi ñun sénégalais yi dañoo dañoo dañoo wàcc suñu base. parce que léegi da am sa doom bu juddu am deux ans wala trois ans ñu koy jàngal fecc suus mu naan la papa suus suus. Hmm. xam nga di jàng wax di jàng ci ay suus te pour xamul lan mooy suus dafa am yenn challenge yoo xamante ne gars ñu ngi koy jël di ko fooyee ay woykat di ko woy xale yi di si topp xale yooyu noonu loolu lañuy ñuy jéem a découvrir ji. Hmm. loolu la ñuy bëgg a xami ji. te yooyu noonu tey ay musiba la. bari na ay musiba yuy daw ci dëkk bi fii nii lépp boo xoolee ci milieu showbiz bi lay dawee. Mhm. liy daw si milieu showbiz bi dafa bëri. ci saa milieu showbiz loolu dinañ ci ñëw eh, ba léegi mais bon dama bëgg ñu taxaw foofu nga baam léegi mandat dépôt bi si ñaata temps nga jàpp ni ndax jot nga xëy na dem jàppale say say frère yu ñu mandat dépôt. Mhm. di leen topp affaire de crime d'habitude seen mandat dépôt ñoom ñaata lay faral doon. waaw ah, ça de la loi en fait mais d'habitude la téye deux ans trois ans mën nañ la téye quatre ans. cinq ans atte la wala deux ans atte la wala xam nga. plus de kon nag lu mu gàtt gàtt deux ans jàpp nañu na ko def camp waaw bu ndawee ba ndaw moom mën na fa def deux ans. Mhm. waaw mën na nekk plus. mun na bañ a yegg foofu. mun mhm. na dawal six mois fekk seen enquête jeex juge bi xam ne kii innocent la mu bàyyi ko. Mhm. kon bàyyi bi comme bi gars yi di wax xëy na mën na nekk. non lu mën a nekk la parce ñoom ñi ñu jàpp ñëpp mën na nekk te du dem procès. ñoom ñi ñu jàpp ñëpp. mën nañ leen nangu ah? mën nañ ko bàyyi te du dem procès ah. na mën nañ ko bàyyi dem procès. mën nañ ko bàyyi te du dem procès. juge d'instruction bu defee enquête am ba jébbal ko procureur procureur bu ko leeree ni kii nii yoonam nekku si da koy bàyyi. Mhm. tey PV bi bu ñu demee ba si biir ñu xool gis ni ñaar ñii nii ñooy coupable wala kenn kii mooy coupable coupable bi la ñuy téye ñeneen dañ leen di bàyyi. Mhm. wala tamit bu ñu demee procès dañuy bàyyi innocent yi. Mhm. comme dam na coupable bi. Mhm. kenn ku nekk li la ci lié ñu xool yoon dina xam moom nu mu la ciy daanee. Mhm. loolu la lu ñu la ci euh, daane. mais mais mais mais euh, Mouhamed xam naa ñu si catal waxtaan mais dinañu wax tamit aussi euh, ci li nga xamante ni jamono bii. wax naa ko sànq ñu bari ñu ngi naan dina dem mën nañ ko bàyyi mu ñu bëgg yooyu léegi bu ñu ñëwee ci milieu carcéral bi c'est vrai que jigéen ñi ak góor ñi bokk ñu fu ñu nekk autrement di jigéen ñi souvent ñoom ñooy xaw a tane tuuti euh, maanaam chambre bi ni muy feeseek yooyu Nabou yaa ngi doon dégg ci ay information ñu ni première guddeem dafa nekkoon di yuuxu di jooy di tremblé wu ba mu jaar première guddi kasaw jaar nga si foofu naka la demee xam nga premier jour kaso méttiwul mhm. sa premier jour violent moo gën a métti violent lan mooy violent exactement violent mooy tey au niveau du police wala gendarmerie mhm. la nga fay daj ci ay coono moo gën a metti maanaam stress bi ngay nekkee di gis nit ñi di dugg di génn fi nga nekk du pour tëdd du pour toog xam nga dafa xat dafa metti quoi. Mhm. waaw loolu moo gën a metti ba tax na doo yàqamti lu dul yow dem déferment yegg ci kaso bi ngir mën a féex waaw doomu aadama nag lu mu àntanul yàlla suñu borom du ko ko teg lii amaana suñu borom moo ne woon nii ñoom dinañ dinañ daw ba dund lii nii. kon maanaam nañu gën a. non non no foofu benn côté euh, du ma xaw a d'accord nag. xam parfois gars yi dañuy wutal lay yenn booy yi yenn parce que da gis koo xamante ni dafay def lu bon loo xam dañ koy tere ba mu koy def nit ñi du ko gis du ko def ba njombe fekk ko si ñu ni ko nattu la donte. maanaam mën nga bañ a def directement mais mën nga def indirectement wala mauvaise fréquentation. mu leer lii mën na la amener si à nga yàgg kaso. nit ñi duñu la wax dara mais bu dee ba dugg ñu nit ñi bëgg ni nattu la nattu si nattu la parce que nit a ngi def chaque jour lu ko mën a yóbbu kaso te demul kaso. Mhm. am na ku dund ba dee chaque jour mu xëy di def lu bon di wax lu bon. Mhm. te musul teg tànkam kaso. am koo xamante ne musul def njubadi ñu jàpp ko yóbbu ko kaso. Mhm. am koo xamante ni day jóg def benn yoon njubadi ñu jàpp ko yóbbu ko am koo xamante da doon jóg pour waaj a def ñu jàpp ko yóbbu ko. kon loolu noonu yëpp nattu la. Mm-hmm. am koo xamante ne mu ngi ko doon def ay at di si rëcc. xëy benn bis am ci porom ne ji ko laal ñaari côté yëpp ji ko la ah. <coughs> waaw parce que gis nga jikko jikko doomu aadama bi. Mm-hmm. si sa jikko tey nga mun a dawee yow ba dal ci nattu borom bi. parce que tey yenn jikko yi ngay am rek njuumte yomb la. Mm-hmm. jël alalu jàmbur yomb la. wala fen yomb la. si yaa ngi dégg. Mhm. wala def yëfi baar baar yomb la loolu noonu yëpp jikko la mais njuumte la parce que ñu si bëri ñu koy def tey dañoo xamul ñi ci xam di def ñi xam ni tey lii boo ko defee lii ak lii ak lii moo la siy fekk ba pare di def. Mhm, mhm. bariwul wala ñooñu bu ñu defee kenn du leen jàpp. dañuy mucc. d'accord léegi euh, wax naa ko bi ñu demee xam nga ba forcément gars yi neen dañu lay wat dañu lay simi ba nga set di la palper di lamb sa yaram bi et cetera dégg nañ sax bi mu premier jour bu mu ñëwee ñu bëri dañu eh, bi ñu leen wootee ci cours bi noonu je pense que dañ leen woo à partir de 9 côté camp pénal su ma juumul ñu leen wooyee ñu génn affaire yooyu mais ñu bëri dañu nekkoon di ko xool ak peut-être tour bi am ak yooyu léegi sànq yaa ngi ni violon bi peut-être mooy gën a metti mais premier guddi kaso léegi nekki ñu kaso métti ban méttiwaay moo fa nekk lan loo xamante ni métti la pas métti coono mais psychologiquement. surtout jigéen psychologiquement xam nga kaso jigéen yi man comme jaaruma fa. waaw ah, waay du ma ci mën a prononcer. Mm-hmm. mais fi ma suñu borom jaarale. Mm-hmm. kaso lépp a métti. Mm-hmm. parce que la liberté n'a pas de prix. tey bu ñu la tëjoon fii nii ci biir salle bi rek nee la doo génn doo wàcc xam nga. amoo droit dem sa kër amoo droit dem fenn yow fii ngay yem. appartement bi ngay yom doo fi génn. loolu rek dafa metti tere la dem ak dikk dafa metti benn waaw. Hmm. ki ñu jàpp nag dem ak dikk lañ ko tere maanaam kooku ci mettit la nekk actuellement. Hmm. ndax picc sax foog naa ne moom buy naaw sax boo ko jàppee suqi ko indil nga ko problème. waaw hmm. rawatina ak doomu aadama. waaw. donc foofu nit ki la war a am. psychologiquement lan lan ma war a nekk si moom ba mu mën ko attan parce que bu fekkee affaire de crime la ñu ñu lay tiital bon tiital naan non dafa yàgg foog mu def deux ans ñi naan vingt ans parce que balaa ñu ñëw ci jugement bi ñu naan vingt ans et cetera. perpète sax mën nañ la ko tëj sa géeru dund. ah bon ci fee bi nii. ci crime fee bi mun nañ leen si tëj perpète. kon ñoom nabu mun on sait jamais ñaanuñu ko yàlla mais mënoon nañ jegal micro mënoon nañ taxaw ñu tëj ñu toppee leen. mën nañ taxaw ñu tëj leen perpète. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp si coté jugement mais tey man du ma nee ñoom ñooy coupable yi. Mhm. man problème bii nii du ci bëgg a xuus si dara. Mhm. parce que dafa nekk problème boo xamante dafa fragile. ñaari doomu aadama ñoo ci làqu. Mhm. am ay nit tey gis nga maam tey gars xam lan la ñu war a wax. presse bi ñoo bañ ñoo war bañ di diaboliser yenn. kii pour jaay seen journaux mm-hmm. yenn dossiers yi quoi yenn dossiers yi pour jaay seen journaux parce que bëri na ñoo xamante ne tey dañu leen diaboliser yàq seen der te fekk lañ leen toppee yëpp du ñoom ñoo ko def ñun tey suñu association bi bëri na ñoo xamante ne tey buñ leen jàppee presque nu mu leen diaboliser loolu tax na ñu tëj leen ay pen yu mag ñu tëdd si ay kaso yu mag yu metti am na ñoo xam fa lañ jaaree am tur ah siiw jaaree fa am ay tur siiw yaa ngi dëgg mais est-ce que loolu gënal na leen. Mhm. te pourtant ñooñu dañoo am ndey am baay am ay waajur dëkk si dëkk bi ñu jàpp leen yàq leen c'est parce que fii nii nuñ la yàqee la ñuy wër tey am na ñoo xamante ne tey yow nuñ la yàqee rek lañu bëgg. is mhm. yaa ngi dégg tey Ouzin niñ lay gisee nii ngay toog plateau di ceene bugguñu mhm. lu dul yàq la. dëgg neexul Sénégal ñun déglootuñu ñuy defar. ñiy yàq la ñu gën a déglu. bañ na ko ba tey ñiy saaga ndey ak ñiy wax yenn yi lañ gën a lañ gën a déglu. Mm-hmm. tey xoolal supposons yenn booy yi nekk si kaaw bi du ma sax bëgg a jaar seen tur leen may buzz. Mm-hmm. mais lan la ñu wax lu jëriñ sénégalais yi lan lañ fi wax loo xamante ne tey jii nii yee nañu ndaw ñi. Mm-hmm. lan lañ fi jëf. wala lan lañ fi liggéey loo xamante ne tey mën na gindi ndaw ñi si non à la violence tey yu mel nii bu amee dañu war a sensibiliser ndaw ñi. ci non à la violence. pas pour autant ñuy taxaw. di wax ci scène bi di ci expliquer di wax. ci ah, doomu nit ki di yàq nit ki ah mais mais dama koy waxaat. dayo dayo crime bi nag moo toll noonu moom xam nga lii gën ñoo fi am. c'est vrai que nag ay mœurs am dayo crime bi tollul noonu de. Mhm. ay crime ñaata crime nga lim ci deux mois yi. ay seize. seize crime ci ñaari rek lañuy wax c'est parce que ñaar ñooñu ñoo gën a siw est-ce que ñi def crime ñi est-ce que ñi ñuy toppee kirim yëpp tey jii nii ay bandi la ñu woon. ñu naan bande fii ci Sénégal est-ce que ay bande la ñu woon. quatre-vingt-quinze pour cent ci ñuy rey nit njuumte moo leen di dal. Mm-hmm. ñu ci bëri ay innocent lañ. Mm-hmm. boo demee tey boo toogee bu ñu la waxee seen mission da ngay xam ne kii. Mm-hmm. dundul milieu banditisme dundul yooyu noonu yëpp. tey crime yi fii am yëpp bu amee benn agression wala ñaari agression si la yem. mais milieu banditisme bi dañu doon wax ni amoon na benn temps comme bi ñu naan ay années deux mille deux mille un deux mille deux man. dama doon nekk xale bi dama doon dégg ay tur yu mag jëlumee wax seen tur ay nit ñu siiw ñu naan non kii defkat la kii defkat la demoon na ba moom moment xawoon na wàññeeku si ay tiit ay nit comme ay ñu ne kii agresseur la kii sàcc la kii bànn la ñu am tur demoon na ba léegi dañu jeg yàgg xëy doo dégg ay tur yu mag de mais da ngay jeg ay ñu naan ñii dañu commencé maanaam agression bu metti bi ak sàcc bi ak def ko tu ñaawtee lu ñu ñëwaat en masse ci année bii nii boo xool dafa xaw a bari pour yow lan lan lan mooy kii bi euh, balaa ñuy ñëw ci euh, taux de criminalité bi du lenn <coughs> du lenn lu dul. dañoo wàcc suñuy ànd. Mm-hmm. maanaam saytu wuñu. moytu mm-hmm, mm-hmm. wuñu. ku si nekk si ñun tey jii nii sa bànneex ak sa bakkan ngay dund. bëri na ñoo xamante ne tey jii nii bànneex ak bakkan moo leen dugal ci yenn yi. ndax ci ñaar yooyu noonu la seytaane di làqatu ngir mën la fexeel yow doomu aadama bi ngir ëllëg ak si biir ñu bëri ñoo xamante ne tey jii nii. ñu ngi def ay fait ay crime boo xoolee crime yooyu noonu ñenn ñi duñu sax tóox ñii duñu sax naan si yaa ngi dégg ay problème mu xaalis lay doon mais bu dee ci cas yi ñu ngi dégg ni booy dañu maanaam dafa ay affaire yu ñu jëloon waaw mais milieu showbiz bi li ñuy jël xeetu drogue yi ñuy jël tey milieu showbiz bi ak gars yi trafiquants yi nekk ci milieu showbiz bi mais nu mu toll kenn xamu ko te ñooñu tey boo waxee ñu ne la ñii ñoo fi gën tey da ngay gis booy bu génnee léegi benn album mm-hmm. ñaari ñaari mm-hmm. single ñetti single commencé di dawal oto bu cher mm-hmm. blanchiment d'argent bi fa lay dawe coke bi fa lay dawee lépp fa lay dawee volet yi fa lay dawee couche yi fa lay dawee ballon yeeg lépp tey ñu ngi détourné ay xale yu ndaw yu jigéen da ngay gis woo bu am vingt ans vingt et un ñu jël ko def ko jënki xam nga. mu nekk sa woo mu jaral la yow comme xale bi day suus ngay daw di jënd ji ay suus di ko kepp pour di mën a taraab ak moom xam nga ñii di jëndali woo leneen ak leneen xam nga. dem ba nga xamante ne dañuy yàq xale yu jigéen yooyu noonu. ñooñu tey jii nii am na xale yoo xamante ne tey bu ñu demee milieu. yenn xeetu pression yi rek a leen yóbbu milieu du dara. Mm-hmm. lu dul pression bi ñu fay jëlee. parce que amaana tase nañu nit mu détourné leen. Mm-hmm. gëmloo leen pression bi. ba tey ñoom prection bi ñoom bu ñu ko amul duñu nekk. nekk dañuy siig. dañ koy wuti. doy na waar. waar euh, temps bi moo ñu xaw a xaw a xoj malheureusement mais sama dernière question mooy taux de criminalité bi fi mu toll nii d'ici dix ans logique bi ñaanuñu ko yàlla mu continuer ko mais d'ici dix ans lan lan lan lan moo si nekk. d'ici dix ans fii ak ci kanam gis nga état bi ñu nekk nii Sénégal dafa toll foo xamante ni dañoo war a delloowaat suñu valeur. fexe ba nga xamante ni douze ans treize ans quatorze ans yi yiy dawal saret di buuju mën a am yeneen occupation xale dafa war xale bu war a jàngi dafa war a jàngi mais tey imagine trois xale bu am deux ans nga naan ko suus suus ay vodi est-ce que mooy dëgg di wax yenn yi xoolal salange boobu noonu te tey maa ngi jégalu Senzala am na ñu baax ñu fa dëkk. te pourtant jii nii dem ba Senzala ut sa ñaari gulu yàq nga daruwaa secteur boobu noonu am na ñu baax ñu fa dëkk tey bu amee benn defkatu ñaawteef lay am est-ce que am na sax defkatu ñaawteef mm-hmm. xam nga yooyu noonu yëpp dafa nekk ay salange yoo gis nga BSDA mm-hmm. dafa am role ci affaire bii nii dafa bëri loo xamante ni tey ñu ngi koy bàyyi muy dem muy def benn fléau fléau boobu noonu nag après tout tànk yi dañuy bëgg a découvrir liñ doon wax mm-hmm. lan la xeetu pression bii nii ma doon dégg xaaral ma jéem ko ñam xool ko xaaral ma jéem a def lii xool ma ne lu may indil. parce que mm. xale xamul dara fuggu lay demee. xale yooyu noonu nag la ñu war a cadrer caser leen ba nga xamante ne ëllëg ak si biir de criminalité bi du metti ñu fexe xale yi. toog ci seeni base. Mm-hmm. c'est ce qui est l'essentiel. mais da ngay gis booy bu ñu nee demal jàngi. mu jël saag bi sànni ko fee ànd ak ay moromam ci saret ci banlieue bi. ah <coughs> lan la ciy gañe 12 ans 13 ans buy dawal saret mënu ci gaña dara lu dul jàng si banditisme ak sonal ay waajuram mhm. booy boo demee mbëbës tey ñaata booy taalibe ñooy teg seen pot yéeg ci kaw montagne bi di buuju chaque mhm. jour oto mbali di rey fa nit rey fa ay booy yoo xamante ne dañuy buuju parce que balaa oto bi di këpp ñu ngi daw di dugal seen bopp machine bi léeg day lâché dal seen kaw dafa am yoo xamante ne moo gën a sensible si yooyu la gars yi war a taxaw. alkaati yi bu ñu jógee topp booy yi jàpp ñaari booy si saret boole dix booy viré leen korom. pour lan. te pourtant milieu showbiz bi booy woykat yi nii. koo si mm. dem appartement wala yenn AP yi gars yi di jël. zaayir lañ fay dund. man li may conseiller jeunesse bi. Mm-hmm. mooy bu la yàlla dimbalee. comme tey ni la yàlla dimbalee nii. Mhm. ñenn ñi naan la ay wutal AP fii nañ wuti AP fële kee naan la maay fay appartement beeg yooyu noonu bàyyi leen ak AP bi loo am ñibbil sa njaboot loo am bokkal ak sa waa kër ndax tey Aziz Dabala bu doon biir këram la ñibbi kenn du ko fa fekk di ko rey. Mhm. ñibbiwul këram <laughs> ci appartement la dëkk kon xam nañ ni moom kese moo dëkk. Mhm. mais yooyu noonu yëpp dafa mën a bàyyi xel quoi. na si gars yi di gën a teewlu ndaw. incha allah bëggoon nañ mu gën a mu gën a yaatu on aura certainement le temps. Euh, waxtaan boo xam ne dañuy waxtaan exclu exclusivement ci milieu carcéral bi mm. parce que war nañ ci am lu ñu waxtaane bu baax sax mën nga ànd ak sa gars yi dolli si ñaar bu ñett ñu mm. waxtaane longue détention yi waxtaane lépp mandat dépôt yu gaaw yi ah, donc euh, euh, garde à vue bu bu yàgg bi donc voilà xaw na xaw na bëri lu ñu war a waxtaane mm. keroog sax su ma jum ñi ngi dajante woon fële ca Diamniadio assises nationales yi yaa ngi fa woon ànd ak ñoom njógu bee gars yooyu donc j'espère que l'essentiel a été dit ñu bàyyi la nga tàggatoo Mouhamed waaw maa ngi siyaar ñëpp di bëgg ñëpp mhm. di soññ rek état bi ci nañu gën a góorgóorlu ci ndaw ñi mhm. buñ ne état nag du président de la république rek la ñuy waxal mhm. maanaam état bàyyiwul kenn tey état ñun ñëpp la mooy maanaam nañu gën a góorlu ci ndaw ñi fexe ba nga xamante ne ndaw ñi lañ leen salange dañu leen di wax na doon ay salange yu dëgg mhm. ay salange yoo xamante ne da leen di jubal di leen gàggante mhm. ba pare tamit euh, état Sénégal nañu fexe ba nga xamante ne ñenn ñi nga xamante ne tey dañuy nekk à l'extérieur mhm. di bëgg a taal suñu dëkk bii nii ñu bañ a taal suñu dëkk bii nii nañu xam ne dëkk bii nii réew jàmm la di sant ñëpp di gërëm ñëpp <coughs> di sant Thierno Ibra Faty bu baax baabulaahi baabul jannati di sant waa parcelle un ba vingt six Kër Massar bàyyiwuñu kenn. waaw di bëggee Dofu Maam Bamba yeeg ñëpp ah. Dofu Maam Bamba sama copain waaw. <laughs> Dofu Maam Bamba sa son bi a nañu ko teg mais temps bi moo ñu xoj. ba ma Dofu Maam Bamba comme sa comme sa doomu ndey ñëw na xanaa di nga ñëw. doomu ndey euh, Dof ndey. waaw non Dofu Maam Bamba day ñëw. parce que ah, mu war a yaatu mais dama bëgg muy ñëw mi ànd ak Dof ndey ak yow. non <laughs> day ñëw day ndey di ñëw. <laughs> te Dof ndey moo la benn affaire moo la benn Dof ndey bi mu waree première voyage bi mu waree demee. Eh, nu mu tudd sax Dubaï. Mhm. daf lay daa naroon a raté volom. Zuro man ak sama benn xarit cameraman ñoo ko sauvé. waaw daf lay dafa war a fàttali loolu. non mais dara dox Zuro liñ ci daj laa moom moom pour ay dossiers daw ñëw daw ñëw. Euh, moom mu ngi si mission boo xoolee moom mu ngi ci nattu. natt bi mu nekk sax nous sommes mal placés pour que. ah Dof Ndeye Dof Ndeye jiir dafa am problème waaw ah depuis booy bi ko doon agressé noonu. ah dañ ko si arrêté. waaw booy bi ko doon agressé mu jàppanteeg booy après dañ ko si arrêté. instant bi fa la nekk mu ngi Kaolack. <coughs> ñu ngi koy ñaanal de passage ñu ngi koy ñaanal tawfeex ak taysiir suñu boroom dooleel ko. ba mu gën a mën a maintenir li lii du dara mais jugé guñ ko quoi. waaw jugé guñ ko quoi mm-hmm. moo waral xam nga duñ ci mën a. xuus lu bari. Mm-hmm. xam nga dossier bu nekk ci enquête moom. kenn waru ci wax. d'accord parce que dossier bi am na ñoo xamante ne ñoo ciy liggéey. waaw ñu ngi nag. Mm. di ñaanal kullu jelmaan ñu ngi lay ñaanal. Mm. fépp fu détenu nekk ci Sénégal. Mm. ñu ngi lay ñaanal. ñi nga xamante di ñaan tamit état. na bàyyiwaat xelam. ndax boo xoolee tey suñu njiit yi fi nekk ñoom ñëpp jaar nañ ci nattu nañu xam ne am na ay sénégalais yoo xam ne dañu leen lancé woon mandat dare ñu génn Sénégal. ba tey mënuñoo dellu si Sénégal. Mm-hmm. mënuñu gis ak seen i njaboot mënuñu gis ak kenn. Mm-hmm. ñu bañ a jël affaire yi rek politiser ko. dawal ñu bëri yërmande. ngir d'accord suñu borom gën ñoo dawal yërmande ñun ñëpp ci mandat d'arrêt boobu sax suñu xel dafay dem ci Petit Mbaye action 2000 ndax moom ab mandat d'arrêt moo ko toppoon ci coowal xaalis bu ko doxoon digganteem ak Tyson ba nii hmm. malheureusement dugagul Sénégal ah. euh, léegi mu egg presque 15 ans euh, euh, ndax côté 2000 2000 et quelque la woon hmm. ñëwul ba léegi donc voilà di masaw ñëpp ñi nga xam ne ngi si ñi ngi si ay jafe-jafe di ñaan yàlla yàlla saafara leen ak ñi nga xamante ni caabi def leen ak ñi nga xamante mooy suñu way dawlu yi Mouhamed Nabi ànd gore bokk jaar-jaar euh, di porte parole les ex euh, détenus repentis moom la ñu fi dalaloon parce que euh, waxtaan bi di ngeen si mën a jàng jële jàngat bu bari ndax ñoom ñi nga xamante ni xëy na amoon nañu ay jaar-jaar ci wàllu kaso pratiquement ay juristes lañ mën nañ leen ko tuddee ay juristes parce que dañuy comprendre yu bëree bëri mandat dépôt et cetera juge d'instruction lépp dañ koy dañ koy maîtriser la prochaine fois moom dañ lay ci wàllu yoon <laughs> <laughs> yee mu nekkoon euh, seen caali ci réalisation bi jaajëf